sénégalaise xam nga dàq way amut mais tolluwaay day am li ma la mën a xamal daal mooy ma du ma wax musique sénégalaise dama koy wax di ko waxaat dama koy wax di ko waxaat du ma wax musique sénégalaise mais musique africaine kenn moo ci nekk lu meilleur mu Youssou nduur loolu loolu moom loolu moom picc yi naaw sax xam nañ ko quoi parce que tamit waa fis de non non day ma non ay fes day am waa fes day am liggéey day am waaye nag sa yaram man day wax deug yalla yu sundur mayuma deureum deureum waye defal nama ma deureum waye defal nama xam lu ma defalee moy sama senegal nga xam dama ko bëgg sama bir xol yu sundur jaayal nama ko ba fo dem ci aduna ku dégg yu sundur dana dana dana senegal la dekk Senegal gi nga xam cila tamit ci la bok nek fi citoyen bëgg sama bir xol ba mu gënal ma fu ma mëna dem ci aduna ndax tukki nañ fu ñibisi wat kon senegal gogu Youssou Ndour fi ay société ay nit di ci liggéey di ci jariñu di jariñ seen i mbokk ak seen wayjur mais loolu defal na ma ko waxuma la dara rek mais carrière musicale yu Youssou Ndour dafa bokkut ak benn carrière musicien ci Afrique man damay bàyyi Sénégal franchement il fait partie des meilleurs te il est le meilleur franchement mais nag booy yi ñu ngi liggéey xam nga koo xamante ni si sa yoon jeexagut fu ne mën nga faa àgg ñii liggéey ñi ne ci musique mën nañ egg fu nekk mën nañ sokki sot Youssou Ndour waaye nag Youssou Ndour nag moom nañ ko nangul li ko may man defuluma dara ni loloy deug te kudul nafiq di nga xamne loloy deug ndax nak ben vraiment benn waykat dabagu ko benn waykat dabagu ko ci musique am ci côté eh, li mu liggéey ci Sénégal franchement nit dabagu ci lolou dañ koy nangul te ñi may deug xamne ni may wax deug la doxi naa feq wax à chaque fois billahi Sénégal dañu am ben jafe-jafe bo xamni dañ ko wara mëna dañ ko wara dañ ci wara joggé sénégalais li seigne Cheikh Ahmed Tidiane waxone al maktoum mune Senegal Sénégal dund fi dafa métti waaye dee fi dafa jafe Sénégal balaa ñu lay xam rek wala ñu lay teral rek nga dee te loolu moo fi war a dañ tey jii benn Youssou Ndour décoré nañ ko ci beneen ci beneen jox fa benn distinction Baba Maal barki démb lañ ko jox beneen dis benn distinction Thione Seck joxoon nañ ko fi distinction euh, ki nga xam ne moom moo di Kumba euh, euh, Gawlo jox nañ ko distinction Bougane mii di sama DG jox nañ ko distinction ci yeneen réew. lan moo tax réew mi ñu bokk joxuñ ko distinction boo xam ne da koy da koy teewe loolu la Sénégal yi war di bàyyiwaat xel nit dañ ko war a teral ci bi muy dund musée bu ñu la mën a defal te defaluñ ko bi dund nga fekkee ko ba neexu ci sa xol sedd nga xam ne lii sa réew moo la ko delloo njukkal buñ la ko defalee si boo génnee àdduna c'est zéro amul sens nit dañ ko war a teral dañ ko war a sargal sagal ko ci bi muy dund réewam delloo ko njukkoon ni ko yow kat bokk nga ci ci ñu defal lii yow kat lii yaa ko man daal loolu laa gëm rôle gouvernement bi la parce que gouvernement bi ni mu ni muy ni muy dem di takkale nit ko ordre de mérite chevalier ordre de mérite noonu la war a xëyee chaque année wala chaque dix ans ñu ne kii kat nañ ko takkal ordre de mérite takkal ko ko ba réew mi gis ko ñëpp xam ni kii kat takkal nañ ko mérité na ko waaye bu fekkee gouvernement bi mënu ko ñun dañ koy bëgg mais des suñu doole du toll foofu dañ koy bëgg dañuy am ay événement yu mag. yo xam dañ ci bëgg sargal kenn wala yëkëti ci kenn mais dara mais da ngay tok dégg ñu né diw kat dem na Amérique jox nañ ko distinction bi diw kat dem na Canada jox nañ ko distinction bi té yow sa réew mi nga bok ñom buñ la gisul ku lay gis. ay Sénégal yow Sénégal Sénégal ben problème ñu am rek Sénégal dañu am problème mu nangu problème mu dañu am problème mu nangu gis nga nit ki nit ki ñak gëm yalla mi ngi tollu ci nit yàlla defal ko lii nga ne amut nit ki ñàkk gëm yàlla mu ngi toll ci nit ki yàlla teral ko ci lii nga ne lii du dem ñàkk gëm yàlla ci sénégalais wala ci africain wala ci doomu adama mooy yàlla yàlla yàlla yàlla def defal ko defal ko daal te nangu woo daal man daal problème mu nangu daal la gaayam problème mu nangu rek rek rek la gaayam ñuy nangu kenn ku ci nekk li ko yàlla defal nanguñ ko ko ah su ko defee yow sax boo nangoo lee nit ki yàlla dala ca yokk